beneen candidat euh, di Mame Boye jaw ñu ngi lay nuyu monsieur Diao. jërëjëf ci ànd bi ñu bàyyi la yow itam sa réaction ginnaaw bi conseil constitutionnel génne dogalam. waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi leen di maa leen di ziar bu baax. jërëjëf. waaw euh, di di rafetlu décision parce que à vrai dire man bettu ma woon. Hmm. bettu ma woon ndax xam nga ku jàng droit maanaam bi ngay bi ngay nekk ndaw xam nga li nga jàngal université yaakaar naa li li nit jàng rek lay tari donc bi bi décret bi amee man dama xool suñu sartu xool article vingt neuf xool article trente quatre xool arti alinéa sept bu article cent boo boo boo boo xoolee yooyu da lay woon ni en matière électorale déjà ci article vingt neuf ak trente quatre lépp lu processus bu président jëlee décret buy woo corps électoral bi pour ne ko da ngeen di voté yi lépp lu fa jëm ci décision ci conseil constitutionnel lay jógee charte réew mi keneen dugg ci biir processus bu mel noonu kenn rek moo ci war a mën dugg mooy cour d'appel mooy bu ñuy wax ay résultats yi nga xam ne c'est des résultats provisoires ci euh, différence bureau de vote yi hmm. loolu mooy benn ah mais nag li gën a li gën a li gënoon a renforcer sama conviction maanaam li gënoon tax ma gëm ni lii day nekk mooy alinéa 7 article 103. absolument ndax alinéa 7 boobu dafa am lu mu wax lu am solo dafa ne la forme républicaine de l' état de même que la durée du mandat nit mënu ko yokk mooy tey jii boo mënee yokk mandat bi benn fan. Mhm. war ngaa mun changer forme républicaine réew mi mooy mun nga jël suñu réew def ko royaume. Mhm. comprendre nga donc pour moi dans ma tête c'était déjà clair que ni droit bu ñu ko waxee bu dee droit kese lu ñu wax euh, kenn mënul woon tere élection yi am ci date bi nga xam ne wax nañ ko. kon yow jàpp nga nii euh, le vingt cinq yow itam dañu war a dem euh, élection le 25. jàpp naa ni le cinq war nañ mun dem mais gëm naa ni du ñu dem le 25. ah lu tax. lu tax parce que conseil constitutionnel article yooyu ma cité noonu 29 à 34. Mhm. may na ko ci situation yu mel nii moom mu gëstu. mais donc dax naa élection yi diiru ñaari semaine wala ñett parce que nag élection dafa laaj campagne électorale donc ndagam defuñu campagne électorale euh, ñaar fukki euh, ñaar fukki fan ak benn donc fu mu nekk nii conseil bi bu ko neexee mun na yokk tuuti encore diir bi hmm. wax ni parce que loolu boo xoolee dañ lay naan bu ngeen candidat gaañu na wala am circonstance exceptionnelle hmm. conseil bi mun na dogal nii donc il faut que ñu xoolaat yan anam moo gën pour def élection hmm. donc moom am na boobu loolu moo gën a am solo man pour man donc léegi li gën a am solo tey ci réew mi mooy li nga xam ne ci adduna bi ñun ñu ko doon reetaanee mooy ñu naan suñu réew fekki na république yu ñuy woowee république bananière hmm. mooy lu neex waay dogal loolu dañ na hmm. donc dinañ mën siggi ci kanam suñu ay naataangoo ci Afrique dinañ mën siggi ci kanam suñu ay naataangoo ci biir àdduna bi yëpp hmm. donc loolu dañ ko sante yàlla ndax suñu réew dafa am réputation ci adduna bi ko moom mooy suñu waaj moom mooy suñu kilifa moom mooy suñu wasila hmm. donc tey lii war na mun tax bi ñun sénégalais yi ñun ñëpp ñu yëkkati suñu bopp xam ni tamit vraiment quelque soit la situation hmm. réew mi moomaat na boppam hmm. li ñu doon euh, taggee démb barki dem mën nañ continuer bi ñu ko tàggaat alors est-ce que est-ce que Mame Boye Diao décision bi dafa am benn responsabilité historique léegi oui mooy jëloon na dogal moom ak assemblée nationale ki nga xam ne moo ñuy atte ñun ñëpp ci réew mi mhm. mooy conseil constitutionnel jël na beneen dogal ne loolu mënul nekk li war mooy ci daar-daar bi nii mu fexe toog waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy candidat yi nga xam ne ñooñu la sart réew mi nangu ñu waxtaan ak ñoom xool ci yan anam la ñuy mën déroulé campagne électorale bi si li mu gën a gaaw mhm. pour man loolu responsabilité historique boobu day tax ba moom tamit mu continuer mission bi nga xam ne mu ko doon am ci bopp réew te bëgg koy jox ki nga xam ne moom la Sénégalais yi tànn. loo loolu loolu kan nga koy wax le président Macky Sall. waaw dama ko koy dama ko koy c'est na appel que je xam nga semaine dernière le le 6 dama ñëwoon ci seen antenne ci suba ji. oui ma ne situation bi tool na fi nga xam ne tension wu réew mi. Mm-hmm. tax na bi il faut que moom mu def ay gestes maanaam il faut que mu wone ni moom bëgg na indi jàmm ci réew mi. Mm-hmm. ci laa waxee woon ni. sa sama sañ sama ay mu ubbi université yi ndax xale yi du jàng sama yéene mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso yi ñu mun leen bàyyi ñu dellu ci seen yi waa kër yàlla def na ñaari décision yooyu yëpp tegoon na ko donc loolu mooy mu ngi continuer di gën ni tamit moom mënoon na bàyyi réew mi ci ay anam yu gën mhm. fii benn crise amu fi yàlla def na am na ay candidats yu jàll mhm. ñooñu bu ñu demee campagne ni mu waree ñu may leen ñaar fukki fan ak benn mhm. ñu campagne ñu teg élection bi maintenant diggante premier ak deuxième bu yàlla defee deuxième tour war a am délai boobu diir boobu nga xam ne conseil constitutionnel moom ci lay xool pour résultat yi moom mën na ko gàttal. Mhm. ndax jamono bi ak xarala yu bees yi. Mhm. dëgg dëgg nag bu amul contentieux bu mag loolu mun na gaaw donc même 2 avril bi war na mun nekk dara jaru fi yàkkamti mais nañ ñu may ñun candidat yi. ñu mun toog ak ñi nga xam ne ñooy dogal bu dul moom njiitu réew bi tamit ministère bu yor wàllu élection ak waa conseil constitutionnel ñu toog ak ñoom ñu xool ban euh, yoon la ñuy jël buy arranger Sénégal. ñu xool ban yoon moo gën pour que dal bi nga xam ne waroon na am ndax ñu ngi waroon dem ci campagne ci ay anam yu leer. Hmm. ñu mën ko amaat ngir jàmm Sénégal. Hmm. te lii ndamu ñëpp la. Hmm. ndax wane na ni njiitu réew mi amoon na sañ-sañ waaye moom it moom amoon na pexeem waaye yàlla dogal na ni lii réew mi réew mi moo ñu ëpp ñu ñëpp doole. li ñu bokk ñun ñëpp moo gën a am njëriñ moom la moom mooy suñu réew mooy Sénégal. donc ñu indiwaat dal bi parce que li ma métti mooy. semaine bii rey nañ fi ñetti doomu Sénégal. oui te amu fi woon jël sens parce que lii nii amul woon benn fitna bu taxoon ba ñu war a egg foofu bon donc yàlla def na loolu yëpp dañ na. Mhm. ci diir bu gàtt mën nañ toog waxtaan candidat yi nga xam ne nangul nañ leen ñoom mooy ay candidat ñoom ak ñi nga xam ne ñooy yor wàllu élection ñu toog. Mhm. ñu xool li gën ñu teg ay diir wala même bu dee mënuñu def campagne ñaari fukki fan ak benn ñu def ñaari semaine mhm. wala yu demee loolu yëpp mën continuer waat jërëjëf Mame Boye Diao peut-être petite réaction en, en français le Conseil constitutionnel donc vient de désavouer on peut le dire le président de la de la République pour vous maintenant on doit s'asseoir en tout cas avec euh, les vingt candidats pour euh, essayer de voir euh, les moyens d'organiser dans les meilleurs délais le, le scrutin est-ce que c'est ce que vous voulez dire comme je l'ai dit je m'attendais à cette décision parce que dans nos, dans, dans cours de droit, euh, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence et la doctrine. La doctrine et la jurisprudence naissent de la pratique du droit. Si vous vous rappelez, dans la réforme constitutionnelle de 2016, le Conseil constitutionnel a été interrogé, d'accord, mhm. sur la possibilité de réduire le mandat du président Macky Mais le Conseil lui a dit en retour qu'il n'est pas possible que vous puissiez le réduire comme vous ne pouvez pas l'augmenter. Ah, ça a précédé une réforme consolidante, celle de 2016, laquelle réforme consolidante a dit dans l'alinéa de l'article 103 que autant la forme républicaine que la durée du mandat ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Je pense que c'était clair et à la limite, j'ai envie de dire c'était vraiment très bien. C'était banal que donc euh, le recours qui se fait n'importe comment mhm. allait casser le décret allait aussi empêcher à l'Assemblée nationale ou à un quelconque organe exécutif ou législatif de pouvoir jouer sur la durée du mandat et ainsi, incidemment, reculer ou arrêter le processus électoral en cours. Mmh. Je m'en réjouis parce que notre pays euh, avait commencé à susciter la risée du monde après avoir suscité l'inquiétude. Et vous savez très bien que cela un impact dans l'environnement des affaires, ça dans la cohésion sociale et dans la, paix et la

puissent, en même temps que ceux qui sont en charge de l'organisation des élections, puissent se retrouver pour qu'on voit la meilleure formule. S'il faut avoir une campagne électorale écourtée, qu'on le fasse, euh, ensuite qu'on déroule, et après, s'il faut, aussi voir le délai entre le premier et le deuxième tour dans la publication des résultats, comment, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, profiter pour que ces délais soient et le 2 avril soit une effectivité dans notre pays au grand bonheur des Sénégalais et qui nous permettra ainsi de pouvoir conserver encore une fois notre réputation d'un pays démocratique. nous ne sommes pas une république bananière, c'est aujourd'hui, le Conseil constitutionnel nous a donné la réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamboy Diao, candidat donc à la présidentielle.